que euh, ñuy waxtaani waat je pense c'est la deuxième fois muy dellu si waat ci un jour un mhm. euh, bi mhm. yàgg na mais enfin dina tegu mhm. ci raay bi enfin a envie de dire la sortie de terre donc euh, ni ñu ko waxee Soxna Fati tey le 27 décembre 2021 donc lañ di daal di lancer commercialement le terre <coughs> nar doon donc le premier trajet entre Dakar et Diamniadio dinañ ci gën a euh, dellusi enfin pourquoi parce que depuis décembre 2016 le état Sénégal daal di signé ak groupe bi di Alstom benn benn contrat bi nga xamante ni fourniture de 15 trains lay doon à à la fois diesel et électrique eh daal di euh, en tout cas procéder à l'inauguration technique de ce train express régional à quelques euh, semaines avant donc la, le TER a ñu koy fàttali par trois entreprises Euh, française mi di ENGIE euh, Thales ak SNCF euh, Société mm. nationale des chemins de fer mm. et puis ñeenti entreprise ñoo daal di bokk ci wàllu consortium consortium ci ci wàllu travaux yooyu mu di CSE GETRAN CDE Eiffage Sénégal ak CERTEM mais également ñuy fàttali comme ko doon wax sànq prévu depuis 2020 lancement commercial ou terre bi ko dañ ko njëkk repoussé au premier semestre 2021 balaa ñu koy reporté donc désormais que le président avait évoqué da doon coïncider ak fetu euh, Noël mm. euh, bi ñu ngi ko doon waxtaane sànq 780 milliards de francs CFA hors mm. taxe loolu mooy coût bi dont 76 milliards de francs CFA pour libération en prise yi ak 10 de francs CFA d'accompagnement pour projets sociaux yi mm. eh bien ñi ko jot a euh, financé muy Banque islamique de développement à hauteur

160 euh, kilomètres à l'heure moo di vitesse de pointe bi euh, mu am ñaari voie standard ak benn voie métrique donc xayma à 36 kilomètres bu ci nekk 108 kilomètres au total 14 euh, gares donc ñoom ñoo pare pour desservir euh, ce train express régional mu nar a doon plus de 196 trajets entre Dakar et Diamniadio et eh bien entre Dakar et Diamniadio ça va durer 45 minutes de de trajet euh, ñuy fàttali que deuxième phase bi nag buy nar a ñëw topp en tout cas bi première phase muy nar doon 19 kilomètres de Diamniadio à a doon d'ici fin 2023 lay nar a lay nar a pare et puis à terme hein, on on rappelle que prolongement itinéraire bi day dem ba yenn ville mel ni Thiès ak Mbour euh, ñu toujours quelques caractéristiques lu jëm ci wagon et rotation le nombre de voyageurs par jour est estimé à 115 000 donc 115 000 voyageurs ñoo koy nar a emprunté bés bu nekk 4 wagons euh, pour chaque train et puis capacité maximale de 565 passagers avec deux de confort euh, donc ñuy fàttali qu'il y aura un train toutes les 10 de 5h30 à de 20h à 22h ainsi le dimanche. Et puis euh, mm. Marcel les tarifs dégg naa ñu naan sax am na première classe. donc wow, on a wow. envie quand même de ah connaître euh, les tarifs. Ah, les les tarifs qui entreront peut-être en vigueur di 15 jours euh, après puisque dañuy fàttali ne que euh, euh, bés yi njëkk yi gouvernement Sénégal daf daal di joxe gratuitement. Mm-hmm. passagers yi ñu mën a en tout cas doxantu ci boobule boobule train mais de Dakar à Thiaroye ku ci bëgg a dem di nga fay téeméeri dërëm de mm-hmm. Dakar à Tëngéej mm-hmm. ku ci bëgg a dem di nga fay ñaari téeméer Dakar ba Diamniadio ñetti téeméer et puis première classe soxna Fatick xam naa nag yow foofu ngay nar a <laughs> ngay nar a installé wu juróomi juróomi téeméer lay nar a dikkee. <laughs> est-ce que dama dem ci téeméer dëkk bi xaw na boobu de Marcel. non non non xam xam fan <laughs> ngay mujjee dégg ngeen Marcel ni mu waxee téeméeri dërëm. ak ñaar téeméeri dërëm mu leer foog mu leer. <laughs> aywa muy euh, lu am solo. Mm. Mm. si tamit parce mm. que dinañ euh, ko soxla lu mel lu toll ci lu mel ni wifi ak tablette de pause d'ordinateur dinañ dinañ ànd ak yooyu les dina am tamit liseuse et prise de 220 volts pour les voyageurs de première classe donc on a tout intérêt à aller en première classe <laughs> climatisation par contre pour tout. le train express régional et puis mm. euh, en termes de sécurité 260 yoo xamante ni ils sont donc chargés de la sécurité soxna Faty yi ku wax liggéey bi xam ne ressources euh, wàllu ressources euh, tout cas les chiffres qu'on a obtenus de la part du gouvernement 8500 sénégalais euh, ñoom ñoo jotee liggéey ci construction train express régional boobu noonu lu tollu ci 1000 emplois directs dont 984 sénégalais parmi ces 1000 emplois directs là lu jëm ci ak CDI également mille emplois indirects euh, dinañ ñëw euh, bokk nañ en tout cas ci wàllu ressources humaines euh, boobu ne alors ñuy fàttali ne que cette cérémonie qui aura lieu aujourd'hui c'est une cérémonie qui fâche lu tax ndaxte bu ñu seetee ba seet dañu daal di wax ne ne un milliard de francs CFA le état du Sénégal daal di décaissé pour événementiel bi lépp lu jëm ci wàllu organisation cérémonie lancement boobu noonu ñu daal koy dippe waa Richard en tout cas Richard Atias et associé bu ñu sukkandikoo ci journal Le Témoin bi def révélation bi alors bu léegi ngi ci kii di Abdou Ndéné Sall nekk directeur général Sinter ca grand jury euh, de la RFM bu Babacar Fall mu ngi naan euh, beaucoup de beaucoup de personnes en tout cas euh, bi waaye en tout cas lu journaliste yi avancé c'est un petit peu exagéré. mais tegul dara ci loxo. tegul dara ci suñu loxo waxuñu c'est c'est ça en <laughs> <laughs> des des impactés qui des impactés oui soxna personnes euh, ñoom ñoo impacté ci euh, ci wàllu terre boobu depuis 2016 nag ñu ngi réclamer quand même euh, ay indemnisation et réparation yu toll ci 50 milliards de francs CFA ñuy fàttali que près de 2000 dossiers de contentieux avec avec l'APIX mu ngi doon nelaw ak waa waa APIX donc loolu tax ñi di impacté yi doon menacé dañuy nar a manifester ak envahir Euh, gare de Rufisque bi tey ci lundi alors <clears throat> waa SENTER ñoom lan la ñuy dolli joxe comme euh, comme défense dañ ne euh, ci ci wàllu performance ci wàllu indemnisation des impactés du terre def nañ ay jéego yu ama am solo parce que 94 virgule 0 0,5 pour cent ont été payés te instant yi mu ngi des lu toll ci 5 cent ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy indemniser yooyu bu ñu sukkandikoo ba léegi ci hmm. Abdou Ndene Sall nekk DG Sen'Ter nee na même ak autoroute à péage am na ay nit yoo xamante ni ba léegi hmm. euh, jotaguñu seen i nampaay te pourtant yàgg na ba autoroute à péage bi euh, daal di pare hmm. euh, mu ne nag état dafa proposer benn foncier ak aménagement benn zone recasement te boo xamante ni c'est en cours pour fexe rek ba wàññi tension bi nee na lu toll ci 38 hectares lañ leen di lañ leen promettre et le chef de l'État nee na Sall dafa dafa bëggoon appuyer personnes yoo xamante ni ñoo gën a vulnérables en leur octroyant 1,2 million de francs CFA pour leur permettre de se refaire et puis 400 parmi les 1000 recensés ñoom daal nañ déjà am seeni chèque mm. et puis muy euh, fàttali tamit ne que kenn mënatul euh, en tout ca euh, wax lu dul lu dul lu dul montant bi nga xamante ne moom la ñu am même lu jëm ci wàllu indemnisation personnes victimes yoo xamante ne impact environnementaux le la mm. ñooñu dañ leen di superviser bailleurs yi ak partenaires yi ñoo leen di superviser et que sax bu fekkee ne problème am na eh bien partenaires yi dañuy arrêter projet bi donc ils ont tout intérêt donc à indemniser ces secrétaire général SONTER nekk yëkkati ko ci grand jury ak Babacar Fall. Chérif mhm. mhm. rapidement train express régional ci ngoon daañu ko daloo coow li bëri woon na et puis Marcel mi ngi koy wax le dernier point les impactés quand même ak euh, li nga xam ne jot na fee xew yëpp ak coow li mu juróon quand Mhm. waaw ñun nit yi banlieue lan soxna Fati surtout impact terre yi coow lii moom defe projet yi fii état bi mos a am yëpp bii moo ci ëpp coow mooy bu train express régional moonte day amoon nañ bu autoroute à péage mais gisoon nañ quand banque mondiale la ko waroon na nag victime yi def nañ ko te coow li euh, wulee wootoon ñaay nii te boo xoolee chiffres yi nga xamante ni euh, APIX joxe nañ ko y'a soixante seize milliards de francs CFA yoo xamante ni pour libération des emprises la donc mm-hmm. mooy li nga xamante ni moom la ñooñu yelloo ak 10 milliards yoo xamante ni aussi ay projets sociaux la muy 86 milliards yoo xamante xëy ñoom ñoo ko yelloo donc mm-hmm. bu dee sédd la wa jaar na yoon je pense que coow waru ci mën a am parce que ñoom seen yelleef dana fekk seen i kër ñu jëlee leen fa c'est parce que intérêt général la état bu soxlaa mën ngaa ñàkk wante tamit comme dafa am ay bailleurs de fonds yoo xam mm-hmm. dañ leen koy jox loolu moom mooy on peut constater bi c'est une excellente nouvelle parce que li nga xamante xamante ni moom lañ génn ci chiffre ñu war koo transporter. cent quinze mille personnes passagers par jour quand même lu rëy la surtout ñi nga xamante ni ñoo dëkk Diamniadio jàpp quartier yi nga xamante ni ba baa ngay egg si Dakar parce que gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni mooy mm. pour dem ak dikk léegi yombatul cher na nit ñaa ngi bu fekkante ne am nañ lii ci ay chiffres mm. ñu sàmm li nga xamante ni mooy infrastructure mën naa nekk ngëneel parce que mm. euh, tarif yi tamit mën nañoo jàpp ni abordable na parce bu fekkee taxi ngay jël des fois bu dee jamonoy fer la des cinq mille francs mm. ay taxes yoo xamante ni déjà qualité bi baaxut yu mm. la gis nga comme li fi xew bërki dem nit ñi di ko ak tamit amul climatisation amul dara donc fekkante mm. nit ñi di dem ak dikk yokk ko BRT bi tamit bu ñëwee dina nekk loo xamante je ndam la ci waa Ndakaaru xaar bi yàgg na tey nag lan jàpp ni kon moom lañ koy ubbi lañ ci xaar yàlla na ko yàlla def. jërëjëf Chérif ci kanam tuuti di ngeen ko mën a am Marcel on te remercie et puis on reste dans la banlieue dakaroise.